Hmm. Assalamualaikum, wakasiyedi boy dawalna yorbeerme job, job job salaamaaleykum Achille Diop Malick Diop Diop Diop Diop ne ko itay ba yaa ni jàmm naka kan njaboot yi ba kenn woppul wallaay Achille maa ngi lay nuyu am nga minutes ma fam e eh, moi dañ laa bëggoon def sot sotoo la kuccal la ba nga xam ne wàcc nga yoon <laughs> waaye am nga huit minutes rek am nga <laughs> wallahi ajiba ajiba madame hmm? ok ci di dem ni ma la waxoon ci suba rek ci di daa xëy suba yor ji si réew mi hmm. di dawal joto sans assurance ni permis de conduire ci dee def loolu lii di la ci di jëm def ah moo kër nag da da dafa fàtte loolu permis bi hmm. assurance bi moy xam nga moy seen affaire yoy non. fi nga xam da ngeen fay papier ci auto wa xam nga ko fofu la ko sais xam ko lool xam nga boo fa defee hmm. ndax Sidi mi hmm. un influenceur def capable de réunir plus d'un million de personnes soo demee ci plateforme am fa un million et quelque n'est-ce pas tëgg yi muy tëgg di waxal mag di waxal xale di waxal leneen mhm. la preuve bi muy bi muy wax ak ci politique euh, la dernière fois gis nga ni mu dansé mhm. ndax juste dafa far benn parti mhm. Sidi moom moomee nekk influenceur nekk un artiste chanteur foo bëgg a jëm si mënul fàtte kii mënul fàtte benn mënul jalgati yoon la mënul jalgati mënul jalgati da koo fàtte mënu koo jalgati xam nga xam nga li ma metti ci yëf yi. da koo defee fi nga xam ne fii la la Sénégal nekkee ñuy lijjanti problème mu accident ñuy xool nan lañuy remédier à ça accident yi mel ne tulleeg màlle ci ci moment boobu nga xam ne foofu artiste ci liñ xam dans les pays sérieux les vrais artistes les vrais influenceurs phénomène bu am ñoom dañoo am taxaw buñ taxawaay buñ te war a taxawee maanaam fi réew mi soxlaa si di jóg jël plumam bind daan ne dawalkat yi daw leen ndànk roulé leen doucement respecté leen yoon def respecté leen code de la route yor leen seen permis yuti leen assurance wut leen visite technique normale fi nga xam ne artistes yëpp dañoo waroon ànd ñoom ñëpp di wax loolu mm-hmm. foofu la Sidi Dieng génnee moom ci moment boobu déconné en tant que influenceur en tant que artiste moom yorul permis yorul assurance nga day daw ci réew mi ma ma la ci mm. daa la woon daa woon ni mm-hmm. daa fàttali ne gis nañ fi président bu réew moom comme neex mën nga dawal sans permis. amul am nga ci sañ <laughs> <laughs> waaye xam nga malheureusement c'est quoi le problème. waaw président boobu nekkatu fi. fii xam nga fi nekk. sëñ Ngundu ak Koromak. maa la ko wax te askan bi. <laughs> barke alxuraan la woon woon ni na. la woon woon ni na. si di déconné nga. yaakaar dawal sans permis la woon woon ni na. si di déconné nga ba fi dund gi méttee defoon naa la sonn la suy wayal ñu dund gi ndax boobu dañaa man personnement damaa xamoon ne am nga dayoo boo xam ne si ne réew mi li fi situation war nga cee mën a wax mu nekk intérêt askan bi. attention mon cœur. Hmm. Sidy est daa toll foo xam ne jamono ji dañ koy tëkkaleek Wally. Hmm. du gis nga Wally balaa ko teg. moom joon hmm. teg. moom la ñuy tëkkaleeg Sidy. kon yenn infraction yi. Oh. suñu ko déggee ci Sidy. day y' problème. day metti du ne nekk lu jaaduwul. influenceur bu toll de Sidy Diop daay bi am am na ci yenn yoo xam kenn waru ko cee dégg instant yi lu ñu waroon def rek mooy non di remercier Sidy Diop parce que bi mu jéggee accident yi def na ci lu am solo mobiliser na sensibiliser na yeete na jàngale na jël na pili moom bind waaye Sidy accident mi ngi am ci réew mi ne tout dawal na sans permis c'est vraiment absurde. ah c'est pas digne d'un d'un vrai influenceur quoi. comme manqué loxo yoon. nañ hmm. ko ñaan soo ay Marie Ndiaye. ci maa ngi tuuti ma ñëw ma di soli ah alhamdulilah. Nyul. di soli bi ñëwul. léegi. yu mel nii bu amee. Hmm. procureur bi de man duma ko ñaan mukk na ko mu tëjal ñu siidi. tëj moom ëpp naa def. mukk waaye gis nga bu nekkee ci réew yu mel nii infraction eh, yu mel nii dañoo war di teg nit ñi ay daan def loolu lu ñuy wax ay travaux d'intérêt général. waaw maanaam kenn ku nekk. Hmm. ca hmm. la ngay yëngu. nañ la ca daan. nan la ca daan. waaw bu dee machon ba la ñu daan ko ca machinerie ba dañ ko yóbbu ci chantier wu état mu liggéey fa gratuitement pendant un mois wala quinze jours bu dee woykat ba la ñu yóbbu ko muy way luy jariñ ci ko nga xam ne maanaam tey tey ji accident yi lañ nekk na ci sii di def ay son nañ ko jox deadline vingt jours mu génnee son boo xam ne da koy way ci wam yëfi permis yëfi waxi waxi nañ daw ndànk Ah, visit technique yu baax tali yi nangam yaatal tali yi nang lépp lépp lu jëm ci wàllum transport na ci si di génnee soo gratuitement way ko ba pare ñu teg ko daan mu dem ci euh, kii garage yi ku ci mel ne boo mara may leen concert boo xam ne pour sensibilisation la. bu dee docteur ba la. nañ ko fajloo yóbbu ko ci clinique yi wala yóbbu ko ci ñiy def aide soignante xale yeeg noonu mu dem def fa ay liggéey ba wàcc jëlaat deux heures de son temps dem ci yooyu noonu ci orphelinat yeeg yooyu di laab xale yeeg di leen ko. très bien ça kon ceci dit que maintenant ku ci jéggati yoon. Hmm. nañ la fekk ca la ngay yëggu ca sa doole. Hmm. ñu daan la ca lu saf sap. ñu tuddee ko travaux d'intérêt général. très bien ça kon Sidi Diop. procureur ma femme et moi nous te demandons solennellement de pas teg Sidi Diop pas fourrière sa voiture pas nangu son permis. wala mu ñu la hmm. nangu permis da quinze jours kese mais le reste. mooy que ne ñu teg ko dans vingt jours ñu ne ko deadline vingt jours nga am pour génnee son sensibiliser ñëpp ñuy da tegu ci kaw tali bi. très bien. beneen bi ci des mooy ñu ñaan ko concert mu defal may gone yooyu di dawal concert de sens pour sensibilisation wala ñu wut gone yi ñoom yaa waaju baax bi ñu publicité yenn bouillon yeeg yooyu jël camion. Mhm. jox ko micro muy wër si yoonu Dakar. di wax booy daaw daawal ndànk bala ngaa dugg joto yoral permis del wuti assurance del wut visite technique nangam ak nangam et cetera et cetera happy birthday to you joyeux Noël waxa si di job buy dawal na yor permis mm. assurance dem leen wuti assurance <laughs> donc Sidi Diop le conseil que je veux vous donner en tant que grand frère vous savez c'est quoi c'est que nga nattaat dayoo bi nga xam ne moom nga yenn saa yi nit ki dina am loo xam ne du ko xam wala mu bañ a xam boppam te ñu nangu ko ñu bañ ko suñ borom defal na la ko ba pare waaw te suñ borom moom lu mu nangu dogal ba lu mu bëri ko ci mbarke la li ñu koy waxee mu dem ñàkk mu dem suñ borom moo la defal li nga am bàyyi boo nag nga ji ma xam fi nga toll xam ne am na yoo xam ne kenn waratu ci dégg ndax suñ bi nga am am nga ko ba pare kenn mënutu ci dara li ci des nag mooy ngeen xam naka ngeen ko utiliser borom baat nga. foo fay jii boo tëggoon way balaa muy def deux heures soixante mille personnes dana ci jot mm. fi ñu lay xaar en cas d' accident en ces périodes nga xam ne accident yi bëri na mooy que nga jël sa plume bind sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoo la topp nekk say fans muy yow muy Wally Seck muy képp kuy waykat ci réew mi waroon nañ en ce moment ci accident yi comme niñ ko niñ leen ko doon demandé bi dund gi chéré ne ñu dund gu cher gi ndax président dégg ko noonu lañ leen di demandé en ces temps là ngeen def lu ni mel mbënn métt ngeen ciy way chaque jour bu nekk journée de reboisement ngeen génnee son way ci pour que mobiliser sénégalais ñu dem ci benn engagement communautaire parce que loolu mooy jëriñ askan bi te moom mooy rôle un influenceur wala un artiste. et je vais te dire quelque chose Sidi dafa dafa dafa nekk koo xamante ni dafa am loo xamante ni daf koy yàgg téye ci loxoom. Mm. muy moom nee na ñu njëkk ñi lay topp seeni way defaraat ko te te te Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm doonoon na nit koo xamante ni da daan xool li gars yi soxla li nga xam ne mm. àdduna bi foofu la tolloog mu wéy ko mm. jox ko askan wi mu neex nga koy dégg mu lay jariñ très bien ça mon cœur naa la dool dolli médaille da yow mii am nga 30 secondes sa temps moo ci des pour nga wax sa dernier mot Sidy Diop na defaraat toogaayam mm. ndax yàlla du nit ñépp lay tàccu mm. séede ko yàlla tàccu mm. boo fecculee dootoo feccati da ngay pàkkarante xam fi ngay jëmale say tànk maa la ko wax saytul bu baax te defaraat say rëboor am na nooy wundaalu rek man nga ne ngalag maa la ko wax te boo daanoo day cool de mm-hmm. waaw donc si di noonu yaa ngi lay noonu socc nan di reetaan donc euh, mooy loolu daal xoolaatal sa toogaay te xool ni nga mën a jëriñoo askan bi pas yow ni ngay jëriñoo dégg nga waaw góor jóob <laughs> Jabira, warlian ko Jabira. Asiras. <laughs> Alay, asim si Dijo. Mm, Ganagawa ko mga karamurek. Lain.